sama yaay jee sama yaay ji gisuma ku ma lay mën a weccee yow mi nga ci yow mi nga wu yaay booy sama gàlla yaay ja gaaw te gën maa ngi tudd Marie Mamadou Mbacke maa ngi waaw maa ngi leen nuyu di leen sant noo gisee projet bi nga xam ne mooy projet yaay ja waaw projet bi moom baax na ma dëgg yàlla man mi maa ngi ci ci yii laa doon yëngu damay dem doon jënd si bitigi léegi dama dàqantee ñoom mais lii nii lii ma fi gis nii dal na sama xel daal waaw moo tax ma dugg si leen jàppale mm-hmm. lan di a a ñëw ci projet bi ah, ñëw fii rek bu ñu ñëwee di jàmm la ñuy am ñëw fii ñu mën a respecté fay bi tamit ci la bokk ndax liggéey moom liggéey la maye tamit maye la boo demee ba jël bagaasu jàmbur da nga koy respecté war a liggéey di ñëw di verser normal soo ëllëgee bu jeexee ñu daw joxaal la yow doo sonn ñoom duñu sonn te diñ ci am ñoom dinañ ci am waaw loolu daal laa mën a yaay ja gaaw te gën. maa ngi nuyoo di sant maa ngi tudd Aïssatou Kébé. yëmbal ko bi ko waaw <laughs> rafetul da waaye ñooy góorgóorlu projet bi macha allah dëgg yàlla ñun ñëpp gis nañ ci suñu bopp ndax xam nga lañu tax a jóge yëmbal ba fii sori na jegewul buñ ci gisuloon suñu bopp duñ fi ñëw macha allah dañ koy ñaanal yokk ba yëg ko ndax dañ doon jàppale jëkkëram jóge foofu ba fii te tey jii li ñu am ñi yëpp ñun ginnaaw yàlla ci politique ci moom lañ ko amee ci moom lañ gisee sunu bopp moo tax ba ñu woowee ci lii tamit dañoo daw sànq la ñu woo waaye dañoo daay bàyyi li ñu doon def lépp daw mhm. ñëw macha am naa sama groupement boo xamante ne fi mu ne ñoom ñëpp dinañ ñëw adhéré te kii ku fi ñëw tamit di liggéey boo yoree sa taabal di nga liggéey boo yoree sa bitig yi tamit di liggéey macha allah ndax ñun ñii suñu taabal lañ yor ñoo ngi kalté ba fi ne am nañ suñu place te lépp fii lañ ko jëlee kon macha allah dama koy ñaanal yokk ba yëg ko yàlla aar ko aar borom këram si barke yonent bi kontaan nañ loolu wax dëgg yàlla mënuñoo wax. salaamaaleykum wa rahmatulah ñaa leen di nuyu di leen ziar leen baalu àq leen baal àq allah maa ngi dëkk comico yëmbal waaw ah, projet bi moom macha allah am na solo ndax ñun gis nañ ci suñu bopp waaw ndax ñëwal ma jàppale la nga liggéey moom ku ko wax ku nit ku nekk bëgg nga koo dimbali te mi ngi jàppale jigéen ñi ku am sa taabal mu dimbali la ku am sa cantine mu dimbali la waaw ñun na ñu ngi koy ñaanal rek fu mu bëgg egg yàlla na fa yàlla eggale ci barke na bi waaw tax jëkk jëkkëram lañ doon àndal di ko jàppale waaw ba lii ñëw fekk ñu ci tey kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax di ko ñaanal tey ñu gis tey ñu di ko jàppale mais bu demee ba ci biir am la ñu leen romb ak di leen bi ngeen ko jàppale yéen réccu ah, wuñ ci dara moom rëccu wuñ ci dara waaw ndax nee nañ ku am sareet di la yóbbaale bis bu amee oto dina la ci dugal bu amee avion di yóbbaale la waaw te moom def na loolu waaw ba ñu indi leket amuñu woon dara defuñu woon dara waaw te suñu leket googu tey ji ñu ngi ci sant yàlla bu baax di ko ci gërëm nag waaw di wax ne yàlla moom la ku ne gërëmul nit doo gërëm yàlla waaw ñu ngi koy ci sant di ko gërëm bu baax nag macha allah fu mu bëgg a egg yàlla na ko fa yàlla eggale ci barke yonent bi kontaan nañ trop loolu lañ koy ñaanal de Modou Gueye moom yàlla nekk président de la République Sénégal waa kay jëf yaay jë gaaw te gën man Fatim Mbaye laa tudd maa ngi dëkk fii Lamsar waaw projet bi de moom baax na moom ndax day dimbali jigéen ñi waaw ndax buñ la joxee ngay jaay di werse boo jeexalee ñëw jëlaat jël sa bénéfice te ci des nga ñëw werse seen xaalis te mettiwul wax dëgg fa yàlla ndax boo jaayee mën ngaa toog journée bi nga jaay dem dugal sa wépp ñëw toog waaw sant yàlla rek ci kaw ci kanam rek ci lu baax. tey jii ñun ñun ñu ngi ñu ngi def jigéen du ñu gis rek mu bëgg liggéey rek te ñun wóolu nañ ko te xam nañ ne buñ ko fi indee tey jii du am benn problème dañ la koy wax wax la affaire yeeg lépp nu muy demee rek nga ñëw def ni ñun rek loolu rek la ñuy def. waaw kay jërë ngeen jëf waay yaay ja gaaw te gën. salaamaaleykum man maa ngi tudd Aminata Gueye dëkk Gunaas. Mhm. ah macha allah projet yaay ja kay moom gën a yàgg gën a wér rek lañ koy ñaanal mu ngi dimbali jigéen ñi ah dina la permettre nga mën a liggéey sa liggéey normal man di ñëw di verser normal man maa ngi nii damaa jëloon mais le 5 laa waroon matal. mais maa ngi nii tey damaa ñëw solde pour jëlaat ndax gis naa ci sama bopp bu baax a baax kii bi euh, prix yi abordable na liñ lay tegal si kii yi bëriwul presque moo boutique yi ñooyam boole kaag nag ko defal par ndànk-ndànk dëgg yàlla kontaan nañ si moom macha allah. tey sama bi yii sama morom yi nga xamante ni bëgg nañoo liggéey daal dama ni leen nañ gaawantu daw si nii. mbir mi daal yeexati ñàkk la rombati réycu waaw nañ gaawantu daw si ñëw ñu ngi dimbali jigéen ñi di leen jàppale man de réccuwuma ko waaw te loo bëgg nag am na fi loo bëgg rekk moom nangu la fay rek loo bëgg boo laajee ñu jox la ko maa leen gën a kontaan jaay ja gaaw te